bi nga xamee ni euh, rey nañu ko euh, euh, paraît-il parce que rek dafa doon supporter équipe bu Sénégal e que benn Algérien moo ko traité de sale noire wax wax ju ñaaw sax peut-être su ma ko waxee ci français du du du du neex dégg sale noire on va niquer après am lu mu ci teg donc bijou suivre information boobu waa Gambie supporter équipe nationale bu Sénégal mauritanien ivoirien ba guinéen yi surtout guinéen citoyen boobu ñu rey foofu Rouen. Pape Cheikh loolu naqari nit Cheikh mu tuddoon Mamadou Barry li mooy boo xoolee parcours euh, ndaxte moom docteur la woon en droit amoon doctorat am ak mention yoroon famem foofu Rouen di jàngale ci université bi euh, ci fag bi di joxe ay cours donc euh, histoire bu banal match bi avant muy commencé jabaram dem defi course ne ko na ko ñëw jël si bi mu koy jël si am na benn waay ñu bëri ñu ngi naan supporter algérien la mais bi ñu xoolee vidéo surveillance bi li ñu gis mooy que maillot Galatasaray la solo donc rien ne permet de relier tey Euh, match bi nga xamante ne moom moo doon waaja a am ak euh, histoire bi am ndaxte daf ko xas ne ko sale euh, nègre comme ni nga ko waxee voilà dinañ leen massacrer yéen ñëpp bi mu jógee nag wax ji naqari ko muy dem ci waa ji waa ji attaqué ko di ko dóor ay bouteille ak ay coup pied ba nga xamante ne finalement bi mu demee à l'hôpital pronostic vital bi c'était très engagé et que amuñu woon benn chance pour que mu survivre ci lañ ko daal di débranché donc waa famille yëpp ñàkk ko en tout cas suspect ci vidéo surveillance bi actuellement Euh, jàpp nañ ko sànq ci 9h30 heure France lañ ko dem interpeller këram pour yóbbu ko fële ca police pour def enquête yeeg li nga xamante ne moom moo ci war. Mm. Euh, lan moo tax ñuy euh, takkale meurtre bi ak match bi nga xamante ne moom moo amoon mooy que moom daf doon wax njabootam que actuellement Sénégal lay supporter et que kooku ya dañu yaakaar ni que algérien la et affaire bi bi muy am c'était juste à quelques heures. de finale bi nga xamante ne moom moo waroon am diggante Sénégal ak Algérie. Mm. xamante ne yow ak ñoom yéen a bokk continent bi ngeen jógee comme ni ko professeur Massamba Gueye bindee mm. nit koo xamante ne ignorant la xamul moom fan la jóge xamul ni moom africain la et que la de toutes les manières euh, ñëw di la saaga di la wax que nit da nga ñuul nit mm. boo ñuulee aussi ça veut rien dire ku ci nekk ak sa peau fi nga juddoo fi nga war a juddoo euh, il faut pas juger les gens par rapport ak ban couleur de po la ñu am ak yu kenn xamul euh, ba baleen si rey li ñuy voilà lii la ñuy tuddee meurtre ne racisme rek moo ko laal France moo koy lal ndax bu ñu xalaatee ne Afrique mooy berceau de l'humanité ñun ñëpp ay nit ñu mm-hmm. euh, loolu euh, dafa euh, naqari ñëpp ñu ngi ñuy xamal itam ni ki ñu am na ku ñu interpellé ci suba gi tey parce que police bu France njort nañu ni kooku moo war a faat guinéen boobule di suma mbokk Mamadou Mamadou Bari du Bari donc tey si suba lañ ko jàpp Pape këram lañ ko fekk interpellé ko mm. ndaxte da gis ne France presque mbedd yëpp dafa am ay caméra donc grâce ak vidéo surveillance bi bi ñu ko xoolee la ñu détecté ban nit la ñu dem jëli ko këram dinañ ko entendre pour xool naka lay mujjee. booy xool sax xam nga tey aujourd'hui euh, l'Afrique on peut dire que c'est le seul continent où toutes les races dañ fiy doxoon tout ñu mës a dégg racisme mm. jamais jamais bu ñu ils sont tout le temps les bienvenus mais ñun pourquoi on n'est pas les bienvenus chez eux pourquoi ne nous acceptent pas alors que nous benn ñaar richesse adduna nekk quasiment l'avenir c'est l'Afrique et puis ñu nit euh, bu ñu wax berceau de l'humanité tey waxuñu ko Europe Afrique la ñu ko wax aussi bu ñu demee itam ci wàllu civilisation c'est l'Afrique bu ñu waxee ci wàllu mathématique c'est l'Afrique science c'est l'Afrique la médecine c'est l'Afrique tout vient d'Afrique donc ñun on a enseigné le monde on est la bibliothèque du monde et que tey bu ñu demee ba nga xamante ne dañuy stigmatiser parce que tout simplement on est noir je pense qu'il y a un problème mais idéologie politique actuellement ñu bëri dañuy jël euh, le fait que ay étrangers ñi ngi si dëkk bi ñu am liggéey ñii mm. nii ñoom ñooy jël seen ay aides yi ngeen waroon a am c'est souvent am dëkk yu bëri mës na fa am exactement et ah. genre loolu loolu en fait ça fait très peur nga xamante ne dafa rasistoon avant nit bu rasistee daf ko doon rusa wane daf ko mm-hmm. doon nëbb mm-hmm. mais léegi bu fekkente ne yow ki la jiite nga xamante ne moom mooy def politique ne mm-hmm. moom euh, euh, républicain la moom moo lay wax ni que étranger bi moom moo la teree am liggéey moo la li moo la xañ li moo la xañ li déjà day yokk sa degré racisme et yow da koy ñeme wane ci mbedd bi dootoo ragal léegi tu te dis que j'ai le droit de wan nit ki na dama raciste voilà te dara ñibbil sa en harmonie tous ensemble ndax nit ku ci nekk tu es différent par rapport aux autres bi du ñu nekk même nit yi waxuma nga jël benn population bëgg leen déterminer ñoom ñëpp de leur peau moo tax su ma nit bu ñuul bu nekk arriviste bëgg a jógee Afrique wala jógee Sénégal nekk bitim réew acquérir fa dara euh, commencé xeeb dëkkam ak xas Sénégal man sama xol bi dafay tàng parce que balaa nga naan naam da nga fay ne la plupart de ñi ñuy fekk foofu ci dëkk yooyu ñoom bëgguñu leen loolu moo indi ay ñu leen di faat ak ñu leen di rey et tout ça donc nit day xam boppam en fait. nit day xam boppam euh, te Olof Ndiaye dafa faral di wax ne am soo wàccee sa ànd ànd boo dem di nga fekk. dëgg la dëgg la dëgg la <laughs> dëgg la dëgg la dem na ñëw na ñun ñëpp benn lañ. waaw li ñu def li ñu am xaajaale rek mooy mm-hmm. di nga dégg ñu ne am West Africa Eastern Africa you know North Africa Southern Africa. Mm-hmm. loolu yëpp xëj na si ay côté tradition la aada ak mm-hmm. yooyu noonu. but lépp dem na ñëw na l'ouest ñun ñoo ko bokk mhm. um, kon it's very important uh, surtout uh, the younger generation ma lu tax may um, souvent su may wax may mhm. um, wax the younger generation mhm. mooy jeunes yi uh, pour rek ñu bañ a fàtte parce que xëj na ñun amuñu chance am yenn yar yi am yenn éducation yi because adduna bi fu mu nekk ni parents yi amatuñu time comme xëj na ñi xam ne mag nañ ñu xam nañ ne am Afrique lii mooy aada lii mooy kii may xëj na ñun ndaw ñi tubaab yi di ñu won ak yooyu loolu a def ak mhm. yooyu so mhm. let us be Africans and remain Africans. Mhm. voilà j'ai rien compris de toute façon mais bon euh, yàlla baax na l'essentiel mooy miin naa sujet bi ñuy waxtaanee muy euh, ki nga xam ne ni euh, moom la ñu fat mu fekkoon baax Guinée et nous pensons à sa famille. sa femme doomam bu am deux ans et ils ah. jolie ah. seen étudiants yi nga ah. xamante ne moom moo leen doon jàngal ci fagura e franchement c'est juste dommage. et puis dama ko daan gis télé bu ma doon liggéeyee ñu ko fay invité tout le temps muy def joxe xalaat. télé sud parce que c'était un spécialiste. mais parce que dafa am xam-xam dans presque plusieurs chaînes de télé pour expliquer ay doctorat en droit pour nga am ko ak mention. il faut vraiment nga am quelque chose dans la tête. Mm. donc c'est juste dommage que ñu jël nit boo xamante ne mënoon na servir Afrique mënoon na servir ñëpp. Mm. nga rey ko ci caaxaan ni ci ci loo xamante ne dogal moom ci boppam xam naa ne bi muy génn oto bi xalaatul woon sax lii yëpp fekk ko. mais c'est voilà en tout cas nous les sales nous les sales nègres là nous sommes très fâchés et très remontés contre euh, euh, cette personne et ces autres personnes euh, yu ñu tuddee ay racistes en tout cas ñun dinañu topp actualité boobu noonu mm. parce que lu laal Guinée mm. dafay laal Sénégal lu laal Gambie dafay laal Sénégal lu mm. laal Mauritanie dafay laal